أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نسلمكم بأكرم التحية وأعظم التحية وأفضل التحية alaa waxya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit ñi ñoo ngi leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ñëwaat ngeen ak ñun ci sunu émission bu mag bii du kenn du Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ànd kook sun bu mag bi fkr 92 point com tabaarakallahu di leen ndokkeel ci chehru mu mubaarak bi ñu dugg nga xam ne weer wu màgg la weer wu kawe la weer bu màgg la si yàlla subhaanahu wa taala ndaxte yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ne ko waxal ma sa jaam yi ne leen weer yépp damay jox malaaka yi di fay illa ramadan waaye fekkee shahru ramadan la ñu nekk yàlla nee na ana ajzi bihi man may kii fay si si si weeru koor kon weer la woo xam ne li si nekk si ay ngëneel bëri na li si nekk si ay mustahabaat yu ñu sopp bëri na tabaarakallahu weer la woo xam ne war nañ see profité jaamu yàlla war nañ see profité di tuub di def istigfaar waaye nag weer la woo xam ne war nañ see yokk su njàngum alquran ndaxte weer la woo xam ne alquran si weeru koor la wàcc waaye weer la woo xam ne tamit war nañ see moytu wax ju bon war nañ see moytu di def lu bon war nañ see moytu di jëf-jëfin gu bon lan mooy koor si la ñuy dugg nag ma maana sawm alsawm huwa al imsaak an altaami walsharaabi waljimaa min tuluuci alfajri ila gurubi alshams koor mooy nga jàpp si bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jote jote mooy siq ak soxna yi kañ fii nahaari ramadan yaani min tulua alchams ila guru ila guru min tulua fi fajar gi duggee rek ba fi jant bi di sowee foofa amoo droit lekk amoo droit naan amoo droit si ak soxna amoo droit def lenn loo xam ne dañu koy tere ndaxte koor day weer wu màgg ci suñu boroom subhaanahu wa taala waaye koor it dafa am ñum war dafa am ñoo xam ne ñoom la koor war du ku tëb rek woor déedéet dafa am ñoo xam ne islaam ñii la tànn na ñii ñooy ñi war a woor bi ci jiitu ci war a woor mooy yow mi nga xam ne jullit nga ki dul jullit soxlawul muy woor kon an yakuna musliman bala ngay woor nanga doon jullit doon jullit rek sax doyut ci koor waaye nag àqilan danga nekk nit ko am xel ànd ak sa xel ànd ak sa sago pour mën a woor xel gi sax doyut waaye nag an yakuna baaligan da nga nekk ku majeur am at yi ñu soxla pour nga mën a woor waaye sax loolu rek doyut mën nga mesure am xel doon jullit waaye doo àttan koor moo tax an yakuna qaadiran da ngay mën a woor am kàttan li soo ngay mën a wor kon ñii lañu togg koor moo tax subhaanahu wa taala wax si alquran ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun yàlla ne yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm yàlla kutiba alaykum siyaamu farataaleef na si yéen koor kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun comme niñ ko farataalee si ñi leen fi jiitu woon pour lan lan mooy bénéfice bi lan mooy résultat bi yàlla nee na laal la laallakum ngir ngeen jaaree fa sax tattaqoon am ragal yàlla kon soo wooree danga fa war a jële ay jikko yu rafet fekkee danga daan jëw ngay jëw ba weeru koor ñëw arrêteel ci su weeru koor bi jeexee war ngaa mën a bàyyi jëw complètement définitivement war nga bàyyi jëw fekkee nag danga nga doon rambaaj ba koor ñëw war nga bàyyi rambaaj nag arrêté su koor paasee tamit nga bàyyi rambaaj waaye bul arrêté rambaaj gi ba koor gi jeex nga reprendre déedéet lu bon kenn du ko reprendre fekkoon danga nekkoon koo xam ne danga nga tàmmoon du di di wax lu dul dëgg ba koor ñëw arrêté ñaanal yàlla ci na nga def ay góor góorgóorlu ba koor gi su paasee tamit nga bañ si delluwaat kon weeru koor dañuy woor ngir defar suñuy jikko moo tax yàlla ne laallakum tattaqun ngir ngeen jaaree fa ragal yàlla ndaxte koor du ñun ñoo njëkk a woor ndaxte koor a ngi am si ñaareelu at si après hijra bi après gàddaay gi ñaareelu at après gàddaay si la yàlla farataal koor si sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye romain yi doon nañu woor Chinese muy chinois yi doon nañu woor ah, naar yi nga xam ne ñoo nekkoon comme Israël Falastin ñooñu tamit doon nañu gis ñuy def koor waaye subhanahu wa dafa digle ne nañu koor di woor ngir jaaree faragal yàlla ndaxte koor li muy dindi si nit ci ay jikko yu bon dafa bari te doomu aadama waxuma la loolu waaye suy woor sax si lay jaaree am sixatul badan muy wér gu yaram li ñuy tuddee santé totale bi nga soxla yaa ngi koy amee si koor jaamu yàlla gi nga siy defit di ko daj mënoo ko am si beneen weer lu dul si koor ci koor subhaanahu wa taala si la def alquran comme na ko ali ibn abi talib waxee ne wa kaana yanzilu jibrilu l aminu bihi cheyan fa cheyan bi xukmi l amri wa sababi alquran waxuñ ne par aaya moo doon wàcc si koor waaye globalement kaamil bi yëpp 114 saar yëpp moo ngi wàcc si si si si weeru koor après nag yàlla di jël di jukki événement ñu jël benn verset sànni par événement ñu jukki li ñu soxla jénne ko mais globalement alquran moo ngi wàcc si chehru ramadan mubarak yal nañu yàlla may ñu woor weeru koor gi comme ni mu waree yàlla raxas si suñuy jukko si barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi foofu la ñuy commencé nag yéen si lan mooy koor ànd koog suñu cameraman bu baax bi alxaaji omar rasoul yan nañu yàlla nangul suñu koor in nuridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh